waxtaane nañu ñett ba ñeenti tem bi ci jiitu dafa am daje bu rëy bu war a am diggante Union européenne mooy ñoom mbootaay bi ñu bokk ak Union africaine ñu jàpp ni expérience xam-xam ak gis-gis bi nga xam ni président Macky Sall am na ko Sénégal daf ci war a am taxawaay bu particulier gis ngeen ci feebar bi

te it li fi xew ci ginnaw Sénégal yépp muy réew yi ñu wër yépp réew mu ci nekk ci lu kenn yëgul Sénégal mi ngi ci dox dox yu am solo ndax jàmm ñu wat ci réew yooyu ñu jàpp ni aussi deuxième raison la boo xam ni war na tax président Macky Sall dugal loxom ci ndaje bi ma xamal leen ni président Macky Sall panafricaniste la mi ngi liggéeyal Sénégal dëgg la waaye mi ngi liggéeyal Afrique buñ ko ko ñaanul woon it loolu waree fam la dana ko def kon d'accord nañu pour waxtaan ak ñoom xool nan la ñu mën a organiser réunion boobu nga xam ni dina am ci kigal yi Union africaine a ngi koy liggéey ñun suñuy ambassadeur ñu ngi ciy liggéey incha allah dinañ defal contrant rendu président de la république moom aussi dina ci dugal loxo wax ak yeneen président yi ba nga xam ni Afrique dina fa mën a am benn kaddu ci kanamu Europe. ndax Europe crise bi dal na ci ñoom bu baax waaye nag am nañu doole ba tey te soxla nañ leen nit ñu soxla ndax niñ doon liggéey ak Europe boobu ba tey loolu lu ñu war a continuer wala feebar bi am na jàngat yoo xam ni andi na ko ci àdduna bi ñu war a soppi sunu doxalin jàpp nañ ni doxalin bi foog mu am lu ñu ci soppi tuuti kon loolu lañ doon waxtaanee tey kooku ma doon premier point bi.

ndax li nga xam ni président bëgg na ko ci PAP ajusté bi buñ ko defulee xëy na ni relance bi ni ñu ko bëggee mën naa yeex te ñoo am nañ ci solo ñaan nañ leen aussi nañu wax ak yeneen partenaires yi pour ñoom ñëpp ñu gën a coordonné ñoom ñëpp ñu gën a juboo ci ni ñuy dimbale Sénégal ndax mbir mi gaaw kooku mooy second point bi nga xam ni abordé nañ ko. troisième point bi mooy les question de migration ñun ñëpp xam ne ni feebar bi dafa andi ay jafe-jafe wàllu dem dikk bi. gis nañu aussi ci fan yi ñu wessu immigration clandestine commencé wat immigration clandestine dañ ko wara xex nañ ko wara xexé développement bokk na ci parce que ñun on a une population très jeune population bo xamni dafa informé li gën moy ñu fexé ñi nga xamni fi fii la mëna juddoo fi kon ñu ngi waxtaan ak ñom ñom aussi ñu mëna a dimbali réew yi pour ñu xool ñinga xamni dem nañ fa nu ñu di régulariser mais ñinga xamni xam aussi ñi ngi bëgg dem nu ñuy fexé ba defar ay programme de développement mais aussi am ay anam yu leer yo xamni ku bëgg dem dina am foy jaar yóbbu fa say këyit ñu may la no démé xam ngeen ne aussi dem beeg dikk bi amna na ay gàllankoor ci walu Europe ak Afrique globalement du sax Europe ak Afrique mais Europe ci monde ak monde bi yépp ñun suñu bop fi ci walu Afrique même ci biir Sénégal am na ay jafe Sénégal ak yeneen parce que ak yeneen réew yi parce que feebar bi ko andi wax leen ñu continuer la nga bi nañu def ko ñu ñu ko nangu ak fi Sénégal ci bi ak ndam ci am ñu ñuy situation pour permettre ñi nga xam ni Sénégal lañu di mën dem di ñëw aussi nangul nañu ko dinañu toga te du yag waxtaanee ko pour xool sur le plan pratique niñ koy defee deug la nak amna na réew yu bari yo xamné ya yu net amélioration il faut quand même ñu souligner ko namu mu ci weer yele tane na waaye ni mu mel nii ba tey gënalaguñu dañoo bëgg mu yokk troisième point bi nga xamné ne waxtaan nañ ko moy les questions de sécurité gis ngeen li xew Mali gis ngeen élection yo xamné mi ngi bëgg am ci yenn réew yi ñu wër lu ci nekk fokk ñu dox ci tanku jàmm fexe ba réew yooyu mën a jàll ci situation bi ñu nekk ci jàmm ak salaam ndax jàmm ak salaam ci réew yooyu moom moo ñu jig ndax am na ci réew yoo xam ne jege nañu jegewaay boo xamante ni bu amee safaan ba maanaam amuñu fa jàmm mënuñu ko bañ a yëg ci suñu biir réew kon it ñoom ay acteurs lañu parce que Mali Union européenne a nga fa réew yi individuellement ñu ngi foofu ku ci nekk war nga fa mën a teew te liñ ñu wax moom mooy li CEDEAO jël te ñëpp xam ne li CEDEAO le président Macky Sall daf ci jouer un rôle extrêmement important Nous nañu que il faut que nous ñu le CEDEAO donc le Sénégal pour solution yi nga xam ni nañ ko ñu mettre en œuvre ci li gën a gaaw bi nga xam ni nañ ko forum de Dakar sur la paix et la sécurité Nous l'avons ko en def ci octobre novembre nous ñun bëgguñu ko woon def en virtuel dañoo bëgg ñu daje nangu nañu ni ci 2021 deux ci trimestre premier trimestre bi dinañ ko mëna a def digënté janvier ak mars ñu ngi dinañ waxtaan ak ñom la ci aussi waxtaan ak suñuy kilifa fi ndax dajé bu am solo la surtout at bi nga xamni mom mo top ci feebar bi gis nañu feebar bi limu andi gis nañu aussi feebar bi ak les défis sécuritaires limu jur loolu yëpp war nañ ko mëna waxtané té Sénégal donna place bo xamni fa lañu wara waxtané loolu. ñoom it ñu nangul ñu ko.